mo am genn kurel gu juddu barki ñu ko kap kap ñëw taxaw ne inapas ñoo lekolo, ñun ñu ñëw taxaw di leen xamal ne loola kap wax dara amusi, nyun ñun lëkkaloo ñoo kap tay, lëkkaloo ñoo kap ëlëk ndax liñu naxari kaba ñu tek ndax pêche industriel man la and ak pêche artisanal ñun pêche industriel lañ yor amuñu doole geej lañu yaakar suñu géej gi ñu yaakaaroon di si dem géej genn wàllu géej gi yëpp def nañ ko ay ay parc def ko ay réserve zone bi nga xamante ne ñun fa la ñu war a dem di fa pese ñoog bateau yi ñoo fay jaxasoo ñu signal mi bateau ay licence si géej gi ba géej gi ay jën amatu fi tey bis ni tey suñu doom yaa ngi di def immigration clandestine te dara warul ko lul géej gu ñàkk ay jën. ñun ñu yor benn ministre boo xamante ne dimbaliwul mool yoonam newul si mool. ndax feebar bi exemple feebar bii bi mu xewee tey secteur yëpp dimbali nañ leen ba mu des pes kuréel gu ngeen fi dégg ne ñoom dañuy défendre pes ginnaaw UNAPAS dañuy seen poste rek lañu lañu la ñu taxawal xamuñu si géej dara seen bopp rek la ñu àndal te ay groupe la ñu yoo xamante ne fukki nit newul si seen ginnaaw ndax seen secteur boobu moo jëkk divisé wu genn wàllu mareyeur yëpp ànduñoo ak général ñii ànduñoo ak Thierno Mbengue kon bu ñu taxawee gëmloo Sénégalais yi ñoom ñom la du ñom am plan A am nañu plan B alerte biñ koy jox buñ ko bu ko déggee saafonteeg nous bëgg liñu liñu nous de ko ci bu ko deful dinañu dem grève